bon ñun comme xamuñu pétrole bi ci ñaata at lay dem war na ñu fagaru ba nga xam ne su jotee ñu war a mun a seet naka lañ koy doxalee loolu nag moo amul ci réewu Sénégal amul benn structure boo xam ne benn jéego boo xam ne président Macky teg na ko bu ñuy wan suñu pétrole boobu su ñëwee ñun ñii sénégalais dinañ ci jëriñ amul bon loolu moo waral conférence de presse bi pour may fàttali waa Sénégal pour may yee waa Sénégal ne bu ñu def comme Ghana bu ñu def comme Libéria bu ñu def comme Tanzanie réew yooyu ñoo ñu ëpp pétrole ba seen pétrole feeñee seen gouvernement yi dañu dem di jël ay bor yu bëri parce que dañu ne su pétrole bi ñëwee dinañ am luñ ko fay ba pétrole bi ñëwee ba egsi ba ñu commencé ko produire xool nañu ne seen bor yëpp pétrole bi moo ko fay ba koom-koom bi nga xam ne yaakaaroon nañ ko ne dinañ ko gis ci ñoom dara la ñu gisul loolu moo waral tey ji gana soo xoolee gana tey jii dafa dellu ginnaaw ci problème mu économie te Ghana ñoo ñu ëpp pétrole Tanzanie ñoom ñoo ñu ëpp pétrole Libéria ñoom ñoo ñu ëpp pétrole mais tey jii benn ci dëkk yooyu doxul moom la ñu wax malédiction du malédiction mal la parce que pétrole bi bi muy laata ñëw amuñu benn structure boo xam ne tëral nañ ko Tchad rek moo ci sauvé te Tchad li leen sauvé mooy que Banque mondiale dafa ñëw gérer leen seen pétrole mais tey jii ñu ñuy jël xool leen gouvernement boo xam ne ñu ngi génn ci ay scandale scandale bërki dem ñu épinglé ay ministre épinglé ay DAGE épinglé ay directeur épinglé lu nekk mais léegi administration boobu ndax ñun dinañu mën a gérer suñu pétrole moo tax Macky Sall dafa war a dem dafa war a dem parce que yoreetul réew mi ñi nga xam ne moom la ñu yaakaaroon en tant que chef d'État alors lii moo waral ma def conférence de presse Get me up, up.